mu doon ab xibaar bu ñu jot di ñu xamal ni ki nga xamante ni moom moo di Seydina Fall ñu gën ko xam ci Bougazelli yoon teg na ko loxo loole nag di ab garde à vue maanaam ab téyeb négandiku goo xamante ni section de recherche bu brigade bu Colobane amal na ko. su bu ñu xuusee ci yooyu la xibaar ñu xam ne ki nga xamante ni moom moo di député ak APR boobule téyewuñu ko lenn lu dul ay faux de banque yu nga xamante ni moom la doon trafiqué. gannaaw ba ñu ko téye it ci lu mat ci ay simili kooku di responsable politique bu APR am li nga xamante ni moom moo di bàyyeeb négandiku googule loole ci ab convocation boo xamante ni kii di responsable politique bu APR bi am li nga xamante ni moom moo di liberté su convocation maanaam ñu bàyyi ko ab bàyyeeb négandiku gannaaw bu ñu amalee ab bataaxal ci ab kayit bu koy firndeel geneenu mbir goo xamante ni it jot nañ ci muy li nga xamante ni wane na ni kii di député Bougazeli dañu ko téye woon ngir loole nga xamante ni moom moo di infraction bu rëy bi ñuy wax flagrant délit ci ab diir bu gàtt lii di ribération sur convocation maanaam bàyyeeb négandiku googule dal na am rax si dolli lépp luy doon charge maanaam lu ñu teg ci ndoddam ñu daal di koy téyandiku te ñu xam ni ki nga xamante ni moom moo di député ak APR boobule mu war a xaar beneenub convocation ajuma ji ci fukki waxtu. li ko dalee 13h maanaam fukki waxtu ñett ki nga xamante ni moom moo di député ak APR boobule di Bougazelli mi ngi si loxol yoon ak enquêteurs yi lee ngir am li nga xamante ni moom moo di information yépp yu war ci wàllug loolu nga xamante ni moom moo di trafic de faux ci pàttali démb foofule ca King Fahd Palace. ñii di gendarme yi nag jàpp nañ fa juróom-benn nit daal di leen déglu ñu fàttali ne ñooñee ki ñu joxoñ doonul kenn ku dul ki nga xamante ni moom moo di le député Bougazeli gannaaw loolu ñi nga xamante ni ñoom ñoo di gendarme yi dem nañ fële nga xamante ni foofu la dëkk ca Géejawaay fekk ci ginnaaw ko fortu otoom lii di ay billets yu takkoo takku di ay billets de banque ay euro ak i dollar si waxtu yooyu lañu daal di ko arrêté ci li nga xamante ni moom moo di infraction bi ñuy wax flagrand délit ci maanaam infraction bu ñu mën a duppee lii di flagrand délit laataa ñu koy yóbbu fële ca gendarmerie bu Colobane jamono ji ñuy wax ak yéen ki nga xamante ni moom moo di député ak APR bi di Bougazeli mu ngi xaarandi ab convocation ci fukki waxtu ca àjjuma ji waaye ñu fàttali ne rek que mbir ñeel foo billets yi nga xamante ni jàppee nañ ko député bii doon na loo xamante ni ñu ngi koy séentu ci kanam ñu fàttali ne rek dinañ xool fan la wànnent di mujjee ki gëtam ci mbir moom nga xamante ni moo ñeel lii di phobie yi ndax ñi nga xamante ni ñoom ñoo di enquêteurs yi jot nañoo jàpp juróom-ñeenti nit nga xamante ni impliqué wu woon nañ ci boobu la mbir rax ci dolli ñu ngi wéyal di seet ñeneen ñaar ñi nga xamante ni ñu ngi leen si tudd